Euh, damay gërëm les maires yu jógee au niveau du département de Podor les directeurs nationaux à forte délégation ñëw fii ci turu Cheikh Omar Anne man euh, en qualité donc de délégué régional li nga xam ni président Macky Sall moom moo ko dénk ci wàllum maanaam collecte parrainage bi ma teeru leen fii jox leen seen wàccuwaay mu nekk nag ndaje bu am solo parce que dañ may indil ay parrains yu nga xam ñoo ci 22 communes yu dans le département de Podor ñaar fukki commune ak ñaar yu nekk ci département Podor yëpp parce que mooy commune yëpp yu nekk nga xam ñu nekk au niveau département de Podor mu nekk parrain nombre parrain yi mu nekk 92 951 dañ leen fixé woon objectif objectif nekkoon 155 000 Nous ñu indi un premier lot boo xam

Abdoulaye Diagne. Tay dañ fi ñëwoon ci touru ministre Cheikh Omar Anne indi euh, parrainage du département de Podor diko jëbël le suñu collecteur régional le ministre Amadou Mansour Faye ñi fi teew nak délégation bi té teewal fi Cheikh Omar Anne moy ay maire ak ay responsable du département de Podor ño xamné ñoy and ak mom gudd ak bëcëk ci liggéey bi ba ñu lancer le parrainage à Saint-Louis avec le ministre Amadou Mansour Faye dañu fixé un objectif de 155 000 parrainage pour le compte du département de Podor Mom ak ñimu andal département de Podor indi 92 951 parrains pour son compte et l'ensemble de ses collaborateurs qui travaillent avec lui ci département de Podor donc amna ñu yaakar bu baax euh ñun ñi nga xamné ñoo indi suñu premier lot buñ ci lo les 100 000 nga peut-être objectif général fixé euh, ñu département de Podor dafa am numu taxawé ci walu politique donc bari na ñeneen ño ni yëngu ci walu Benno Bokk peut-être ak donc am bu ñëpp indé dépasser même l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République département de Podor 22 communes la am 22 communes nous sommes ici, indi sommes ay parrainage day est que Cheikh Omarane ak ils sont très représentatifs dans le département de Podor amul une commune bu est fii su ngeen 22 communes donc loolu qui na ni c'est qu'il am a qui ci commune bu nekk te parrainé collecté ko pour le ministre Amadou Mansour Faye